waaw waaw arbitre soufflé waat na gaa yaa ngi bagaar si suuf mais booy seen combat bi metti na de booy réparé mi de billaay kuy jël avance am bu yeboo xoolaat ko mais booy bi jàngu lu dul xeex moom moom da ko xeex ba mu jeex quoi ñoom ñaar ay ndaanaan lañ nag mais booy bi moo gën miin géew quoi liñ naan bëre olof koy def waaw mais Pël Fuuta moom bu ñëwee si rek day am problème mais Pël Fuuta yàgg am jom billahi ay waay déggal lii billahi jëlal ma loolu waaye ndereng bi dina rey kii di waaw waaw réparé ndeysaan kii tey jii Pël Fuuta yëpp war nañ koo jàppale te xam ne jóge réewam ñëw fii di rayante loolu yombul loolu yombul te day ja arrangé wul kii parce que kii droite bi rek moo mën a dóor mais gauche bi da koy rek mais du fooram mais est waaw yaakaar nga dóor bi arrangé na ko. réparé. Hmm. réparé gis nga ñoom ñaa ñëpp dañ leen avertiser parce que bëre wuñ dañuy li ñuy xeex amul intérêt. ndax xeex bi bu awee yoon du yàgg. Hmm. xeex bu awee yoon du yàgg. waaw xeex bu awee yoon du yàgg. waaw waaw arbitre soufflé waat na. avertiser na loo réparé. avertiser na ba rëm. mais rëm yow affaire bi du dóor rek. mais réparé wàccal bëre yow. mais booy lu ñu def nii. booy jàngaluñ leen bëre xanaa. waaye booy bi dina daan ay waay oh réparé continué action mais bu continué woon booy bi jeexaloon na wane woon na ginnaaw waaye ka booy bi li ma la wax kaani la boo ko naanee foo jaar nga naani ndox boo ko yëyee dem jug bool ba waaw waaw mais bëre bi joxe nañ de ñoom ñaar ñëpp jeexal nañ léegi ku njëkk a bëre gañe ku pakete waa ñii booy ñan ñoo leen jàngal bëre ñii ñan ñoo leen bëre hop hop hop hop mais réparé jeexal na yow mais kii loxo yi bàyyi na yow oh réparé jeexal na oh réparé da yeeru réparé da yeeru ma ngay xeex xeexu mbedd ma ngay xeex xeexu mbedd réparé ngay xeex xeexu mbedd waaye yow ku kii xeex oh papa ay waay booy bi am na bong-bong booy bi am na bong-bong booy bi jàpp na kil ay waay avertise ay arbitre yow réparé bul mere arbitre bi arbitre bi defu dara yow bagaaral foofu yow booy bu ndaw bi rek ak sa tànk loolu de yoon la waaye liggéeyal waay waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw demal rek loo am jël waaw waaw réparé ngay iriwaat mais eh, Siteu avertise ko waay Siteu avertise ko mooy yoon waaw waaw lan lu xew waaw waaw oh oh oh victoire par avertise victoire par avertise victoire par avertise réparé ñàkk na combat bi réparé jugal géew bi loolu baax na loolu baax na garaawul réparé jugal géew bi jàngi waat xeex yow ni ngay xeexe moo la xañ xeex rek du combat doo wàcc songu ah oh. dee nga